VAK bokk na ci événement yi gën a mag yu doomu Kaolack yi di xaar bi la final nag ñu nemmeeku ci teewaayu ay groupe ndaw yu bëri yu jóge ci kàcc bu nekk fii ci Kaolack li ni mel nekk ab occasion ci sëriñ Mboup mi nga xam ne yëkkati na fa kàddu ngir rafetlu li ni mel. Sénégal dañu jàpp lépp muy Dakar mais je pense mën nañ wax ne il était une fois am na temps xam ne nii. lu ñuy def ci Sénégal Kaolack lay déparé xool leen ko ci cosmo politique bi ak cosmo économique bi ak religieux mu nekk loo xam ne nii day dajale ay ay xale ak i mag li koy prouver mooy maa ngi ànd ak sama benn xar léegi mënal ma mobilisation bi am na solo ma ne li ci gën a yéeme mooy ku fi ñëw danga paas dagg ticket dugg. njiital complexe bu Cœur de Ville bu Kaolack mi ngi félicité bu baax ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi yeewoo fii ci Kaolack ba noppi muy ñaax suñu ndaw ñi ñu ñu gën a mànkoo ba mun a sukkali dëkkub Mbossé Kumba jigéen bii. damay euh, euh, félicité xale yi nga xam ne ñoo ñëw ñoo def concours bi pendant trois mois ñu fiy ñëw chaque samedi di concours yi di def seen aussi répétition yi ba réussite bi am. waa doomu Saloum ay jeune la ñoo xam ne ils engagé engagés parce que liggéey bi métti na trop parce que événementiel képp ku xam événementiel xam ni organisation bu métti la bu jafe muy taw ñu ngi fii muy naat ñu ngi fii donc di coup dañ leen di delloo njukkal di leen féliciter waa doomu Saloum ci seen engagement ba réussite am métti woon na trop.